Hola. المسلمين أبدا ورحمة أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة yéen ñi niy déglu ci Touba Monde bi ci seen rajo Xassida online Touba Monde bi nekk fii ci Touba Italie kàddu gi di bàyyi ko fii ci Touba Milano ci studio Serigne Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Bachir ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare seen émission bi ñu tuddee Makarimal Akhlaq di waxtaan yoo xam ne di leen koy tànnal di leen ko indil bis bu ne li dale altane ba ajjuma juróom ñetti waxtu jotee ci ngoon di leen koy taxawul di seen mbokkom taalib Ibrahima Ndiaye Khalil di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi xalifa général de Mouride di ñaar suñ borom yàggal ko fi ci suñ kanam di beral cant ak ngërëm ki nekk ci wàllu xarala gi sëriñ Modou Mbaye Thiam Mbaye Fall mu mel ni suñ waxtaanu tey ñu ngi koy sof fin daanee leen démb mu di waxtaan wi nga xam ne moom leen indi woon sëriñ Fall Boussa moom sëriñ Xasan Boussa doon ko amale ci jumaa jumaay Touba muy jumaay ju mag gi mu bokk ci waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy amal weeru koor wu ne ñu xamle woon te njëlbeen nag waxtaan wi ne incha allah ñaari émission la ñuy def waxtaan wi ñu doon topp waxtaan wi démb moo doonoon émission bu njëkk bi kon incha allah tey mooy doon ñaareel émission bi nga xam ne mooy mottali waxtaan wi nga xam ne Serigne Assane Bousso mi ngi doon amal ci jumaay Tuubaa ji mu mel ni fi mu démb mi ngi tolleen ci défis yi nga xam ne maanaam li nga xam ne moo jàkk moo jàmmarloo ak yoonu murit wi ñu war a fexe ba jàkkaarloo ak moom jàmmaarloo ak moom mu indi woon ci tomb bu njëkk bi xam la woon ne li ci njëkk mooy nun murit suñ biir euh, ñaareel bi nga xam ne nag bokk na ci liñ war a jàmmaarloo kon moom la war a indi tey jii kon ñu bokk digul sëriñ bi kon sëriñ Xasan sëriñ Fàllu Xasan bismillah benn defi boo xam ne moom tam mi ngi sonkante dëkk bi mooy ki ñu seqal adduna bi ki ñu tuddee al aaxar al yi mooy ki ñu seqal adduna bi te mën naa am sax bokkuñu pas-pas xam nga ne jamono ji ñu toll ci li ñu tuddee mondialisation maanaam bokk système boo xam ne nii dañoo bëgg a def adduna bépp muy benn cëslaay yi te ne valeurs yi ci boppam ñu jël ko def ko muy benn léegi am réew yu mag wala boog menn réew yu mag. moo xam ne nii moo bëgg a jël ay cëslaayam ay valeur am ay pas-pasam ak yooyu ne lii mooy ay valeur universelle fas ko yéenee teg ci kaw ñeneen ñi maanaam tey nga xam ne xeet yépp dañoo bëgg effacer seen cëslaay dootu am seeni i pas-pas seen i ngëm-ngëm seen i jikko seen i lañ gëm ne moo baax lañ gën ne moo bon lépp ñu jëlee ko fa jël ñoom seeni i indi ko teg ko ci kaw ñooñu képp ku wuute ñoom nag ci gis-gis boobee ñun la yow da ngaa avancé wut développé woo da ngaa tardé ak yu mel noonu. kooku nag ñun dañoo seq ak moom àdduna bi mooy mooy keneen ki mooy keneen ki ñu seqal àdduna bi te mu fas yéenee jëflanteeg ñun ci noonu kooku war na noo xam bu baax nu ñuy moom te loolu sëñ bi jàngal nañ ko loolu dong moo andi woon wuute gi amoon diggante sëñ bi ak colonialiste si ndax sëñ bi dafa tubaab yi wala ba colonialiste dañoo ñëw bëgg fee indi seen xeetu dundin yu bees seen xeetu gisin yu bees bëgg koo remplacer ñun suñuy gisin ak suñuy pas-pas sëñ bi gis ne loolu warta am mu jàmmaarloog ñoom loolu nag moo ñëwaat di lu bees ci suñ kanam ñëwaat nag ci beneen façon lekku nag xam na ni tubaab yi dootuñu indi ay avion de guerre indeetuñu ay char de combat indeetuñu yu mel noonu wàcc di xeex ak yow léegi beneen façon xeex lañu indi loolu ñu dee xarbu al xarbu dakiya maanaam ab guerre boo xam guerre intelligente lañ koy tuddee boo xam maanaam dootuñu jëfandikoo ngànnaay yi ñu xam ay ay ay li ñuy wax arme loolu dootuñu koy jëfandikoo yeneen jumtukaay la ñuy jëfandikoo loolu la ñu war koo xam war cee jàmmaarloo ñoom te loolu dañ ko gën a desaat ci kanam tuuti tomb boobu nag liñ ci mën a génne lenn danga la mooy pas-pas bi sëñ bi amoon ba jàkkaarloo ñoom ba not leen pas-pas boobee rek moom lañ mën a ba jàkkaarloo ak ñoom ba duñu mënal li ñu bëgg ak yitte ju kawe mooy yu baree bari ñu jàpp ne mooy yëf yi ñu xam ne du yëf yi lu bare bare fañ jàpp ne fa la yëf yi nekk ñu xam gëm ne yëf yi néewut foofu yëf yi weesu na yu noonuwaat yi ñu koy natt waaye mbirum jitte ju kawe la jitte ju kawe nag mooy nga xeeb yu bare bare yi nit ñi xëccoo di ca daw di ca gëstu yow nga gëm ne loola taxulaa jóg am na lu féete kaw loola moo la tax a jóg beneen defi bi dañuy taqaloo ndax dañuy leen di seen biir beneen defi bi mooy taxawaayu politique ci ñun muy ban taxawaay lañu war a am ci dundu politique bi ci ñun séqal loolu tamit loo xam ne nii war nañ cee taxaw jàngat ko bu baax a baax ndax defi ba nga mag la suñ kanam danoo war a politique wala waruñoo politique laaj la il faut koo tontu tey da gis koo xam ne nii day taxaw ne la politique nangam wax ci lu bare bare na léegi ab sëriñ bu ko def sëñ bi nangam ak nangam indi ay layam ba wala ne la loolu maanaam moom sax ci moom dafa araam kenn wur koo def gis koo xam ne safaan ba lay def moom da dugg waaye nañ cay dugg di baax bu ko defee lam cay perte mu ëpp lam cay gañe kon mu jot sëkk nu xool kon défi politique maanaam maanaam maanaam politique bi ñuy dëkk kon naka lañ ci war a taxawee loolu dañuy jàngataat delluwaat ci sëñ bi ci boppam jàngataat ko ba xool ba xam moom ban taxawaay la amoon ci dana jafe nga dem fenn jukkee fa ne lii mooy taxawaayu sëñ bi ci politique waaye boo jàngatee dunduk sëñ bi ak ay taxawaay yu bare bare yi mu taxaw mën nga cee génne ne sëñ bi amoon na position politique bu leer nañ te daañu ko layal sëñ bi amoon na position politique kon bu kenn mbir gi war ñëw politique ndax sëñ bi amul def déedéet sëñ amoon na taxawaay politique. sëñ bi dafa doon opposé dafa opposé woon woon ndax tubaab bi la tase woon tubaab am luñ bëgg moom am luñ bëgg mu taxaw du ko fi def loolu mooy opposant te ñu ñu bari nañ bàyyi xel ci ne sëñ bi li ko boole dëgg-dëgg du woon affaire diine affaire politique la seen modèle ñoom dañoo amoon seen système boo xam ne ñu bëggoon a taxawal fii ci dëkk bi ci réew mi sëñ bi am système bu mu bëgg a taxawal ñu jàkkaarloo loolu rek moo jur yëf waaye ah ñi fi doon julli ngi fi doon julli ñu doon woor a ngi doon woor ñi daan jàngal xaan a ngi alxaan te jiitu woon dara ak tubaab bi am na ñoon sax sax ñoo xam sax ay xarit seeni xarit lañ woon kon li boole woon sëñ bi ak tubaab bi du woon problème diine kese kese waaye problème politique la kon sëñ bi amoon na taxawaayu politique mooy dafa opposé wu woon loolu dañ ci am luñ daan am luñ leeral tuuti ci kanam kon sëñ li ko boole tubaab yi taxawaayu politique la moo tax ñu dem atte ko génne ko ab dëkk yóbbu ko jàq seq ak ñoom li ñu lépp ba daan ba daan ba mu daj ci lim ci daj loolu lépp ay problème politique moo ko laloon. kon sëñ bi teel naa wane ne moom dafa opposé wu ci li fi colonialiste si bëgg a def te du ko nangu waaye nag bu ñuy waxtaanee ci opposition gi sëñ bi doon opposé wu moom dañuy dañ koy mën a tuddee opposition bu légal maanaam bu bu dëppoog yoon ndax. li ñuy wax nga opposé wu ak fipp dañoo xaw dañoo xaw a jege te bokkuñu fipp baatu wolof la maanaam mooy nga maanaam ñàkk a topp li ñuy wax isyaan madani dafa am muaarada ci arab ak isyaan madani muaarada mooy nga opposé wu isyaan madani moom mu ñuy firi désobéissance civile maanaam nga fipp ne li fi nekk bañ naa dootu fi amati loolu aw doxin la sëñ bi nag dafa opposé wu woon waaye nekkutoon ci isyaan madani moo tax mësta nangu tubaab yi mësta nangu seen ñàkk fi mësta nangu tam seen système bi mu fi indi moo ne day li mu ko doon bañ bañ bañ am na loo xam da ko daan séq ak ñoom ci wàllu jëf leen ci àdduna dañ joxe misaal nangutoon benn loi buy jógee ak ñoom gëmu ko woon àndu ci woon waaye am na loo xam bu ko masaan bëgg a def da leen di bind lettre ne leen dama bëgg def nangam jumaa ji ñu toog bi ñu ko bëggee taxawal dafa bind lettre demande autorisation dafa bëgg a tax jumaa te tubaab yi la ko adressé te àndoon ak ñoom ci lañ nekk. ba mu demee Mbàkke daal ñu koome ko ko ndar lu waaye ko koome ko xam ne ne ji jeng la jubul baaxul waaye dafa dem wuy ji bañ ko attee ndar atte bu jeng boo xam ne kenn du atte sax dañoo bind leen neex ne ko dañ lay génne réew mi yóbbu la ca feneen tegu ci baat da ca ànd ak ñoom ca loola bi mu dellusee ku nekk xam ne ne ci mujj gi mu njaareem ñu def ko fi yóbbu ko dañ ko def résidence surveillée mooy diggante bi sañoo ko génn te amoo autorisation génn fukki at ak juróom yi mu def njaareem yépp ci loolu la ko nekk bu ma saan bëgg a génn dem fenn dañuy bind autorisation ne sëñ bi daa bëgg dem barab sàngam te tubaab bi lañ ko adressé kon système bi ngay opposé wu ne dafi nekk teewut nga mën tënku ci luwaay yi nga gisee dafa jeng nga tënku ci ba noppi nag di xeex ngir mu jóg fi loolu mooy opposition gi sëñ bi doon jàngale loolu la sëñ bi jàngale lii ànduma ci gis naa ne jaarul ci yoon waaye nag danaa ci tënku ba xeex ko ngir mu jóg fi te képp ku bëgg a soppi da ngay bàyyi xel ci lu mel noonu ñi ko tànnatee te jaaruñ foofu dañoo échec képp koo xam ne da ngaa ñëw ne système bi ànduma ci dama ko fi jóge par force ña ko defoon gis nañ ne ñoom jóge nañ fi lañ doon xeex jóge te sëñ bi moom mi defoon lii jaar fii mu jaar tënku ci lu yooyu ba noppi gën leen war na ko fee jëlee lu baree bari moom mucc na ca léegi te ñooñu ñoom muccaguñ ci ba léegi. loolu bu ñu ci doon misaal day mel ne rek système bi mu ngi mel ne néeg bu fekkente ne da ngaa benn néeg nga dëkk ci mu néeg nga dem ba mu yàgg gise néeg bii gëpp maanaam xajatuma ci waratuma cee dëkk te dëppootul ak sama nekkin kon néeg bi war naa fee génn léegi dañ lay laaj ndax dangay ngay wutu néeg dangay wut ñaari néeg ñetti néeg bi defal ko ba noppi tuxu dem ca door toj néeg bi wala dangay ngay toj néeg bi door a tabaxum néeg bis boo tojee néeg bi te tabaxum néeg nag. donte ñaari gudd loolu ñetti gudd da nga ko fanaan àll ci tumuranke loolu loolu lu ñu xam la bari na réew yu ko tànte yoo xam ne foofu la ñu mujj moo tax opposition gi doon sëñ bi doon jàngale mooy ngeen bañ li fi nekk ba noppi nag tënku ci ngir xeex ko mu jóg fi loolu lu ñu war a jàngale la ci ci ci ci ni ñuy dundee ñun mooy li ñuy àttali ci bari bari mën naa am dëppoowut ak suñuy pas-pas dëppoowut ak suñuy ngëm-ngëm dëppoowut ak suñuy bëgg-bëgg dëppoowut suñu jubluwaay waaye nag état mooy état état bu xasee taxaw du kenn ñun ñëpp la kon lam am ci luwaa ak ay sart ak yoo xam moom ay règlement yu mu teg loola dañ ciy tënk même boo gisee ne jubut dañ ciy tënk ba noppi di xeex ngir soppi ko maanaam loolu loolu moo mën a nekk waaye leneen loo def loolu lu ñu war a jàngale la moo tax ci xew-xew bi bi mu amee sëñ Muntaxa tax yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko taxawaay bi mu ci am njàngale mu mag a mag la parce que xëy na am nañu bare bare ñoo xam ne ñu ngi di gis di waxtaan ci biir na koy dégg nangam ji waru ko def nangam ak nangam waaye ku xam état sëñ bi ku xam ku xam état la moo tax mu doxale ni te yàpp naa ne gëm naa ne wala boog yaakaar naa loolu ne ku xamal lam yéene da nga xam ne am na ci yoo xam ne nii gënalu ko waaye nag il faut dañ ciy tënku waaye nag tënku ci ba noppi di ko xeex ngir mu soppi ko loolu mooy yoon wi sëñ bi jàngale woon muy défi boo xam dafa ne suñ kanam kon gëm ne yoonu murit waruñoo politique loolu war nañ ko xalaataat waaye nag dugg ci te xamoo noo ciy duggee war nañ cee xalaataat waruñoo opposé itam ngir opposé rek bañ rek ngir bañ loolu itam du yoon sëñ bi jàngalewu ko sëñ bi bi mu bañee ba noppi dafa teg lu ko remplacé ku nekk xam ne boo jàngee xasidat ma labul fawse yi maanaam projet de société la boo xam ne nii sëñ bi daf koo teg buñ mën a appliqué boo xoolee ni mu doon yare nit ñi ñu sukkandiku seen bopp système la boo xam ne nii képp ko bëgg a soppi da nga ci jaar mooy ñu fexe ba dootuñu jëggaani liñ bëgg ñu mënal ko suñu bopp dana tax ba li ñu bëgg a tegal suñu bopp ci ay loi ak règlement nu mën koo tegal suñu bopp te loolu suñu def ko jàngale kon képp kuy bañ la ngay bañ il faut que koy wutal lu ko remplacer kon def politique ci biir yoon wi mënta ñàkk mooy li ma doon ubbee waxtaan wi mais léegi ne kon war na noo feeñalaat suñu bopp suñu poids politique bi ñu am ñu jëfandikoo ko suñu kilifa yi ñu jiitu woon dañ ko jëfandikoo sama wër Fadel si meen Moussa xëy na ci situation yi mën nañ cee jël lu bari waaye Sëñ Fallu bu mën nañ ko waxtaane mu leer nañ Sëñ Amadu Fadil Senghor la jamonoontoon bokkuñu diine bokkuñu pas-pas waaye daan jëflante ak moom di ko jàppale ci wet wàllu état bi Senghor di ko jàppale ci wàllu diine ji wala wala boog wàllu jëm doon yëngatu moom muy diine ji te Sëñ Fallu gëm loo na Senghor ne ko bis boo la bàyyee nga daan Senghor it gëmoon bis bu Sëñ Fallu bàyyee mu daan loolu pas-pas la il faut que ñu jëflante ñoom ci noonu xamal leen ne ñun ñi ñoo ngeen daan loolu nag politicien boo ko wan mu jox la cër moo tax Senghor mës na ñemee def lenn te tàggu Sëñ Fall moo ne bokkuñu woon diine sax nag gannaaw ba fi Senghor jógee si Abdou bu ñu ñëwee dégg nag Abdou Diouf ku nekk xam na ko wax na ko sax muy dégg moom ci boppam leeral na ko ni Sëñ Abdou moo ko fi téye Sëñ Abdou moo ko fi téye loolu loolu loolu dañ ko war a moo tax li wér na ne Abdou Diouf moo ne bokk président am nay jamono. maanaam soppi ay ministre sax balaa koo def il faut que mu ñëw wan liste bi Sëñ Abdou Lahad ba si Abdou Lahad valide liste bi mu door dem loolu jëflante la loolu il faut que ñu delloo si lu noonu parce que ñu seqal wax naa ko léegi léegi ay rapport de force la maanaam da ngay wane sa am ñu jox la sa cër loolu buñ ko daw buñ ko daw ndax mën da ñàkk te moo fi amoon naka jekk loolu koy war nañ koo xoolaat kon bu ñu delloo ci lislaam lislaam nanguwul nit ko amul position bi mu mënti doon lislaam li mu jàngale mooy day jaar yoon lépp lu jaar yoon par force da nga war a ànd jaarul yoon lépp lu jaar yoon kenn waru cee ànd mbir mi daa jaxasoo am lu jaar yoon ak lu jaar yoon da naan nañ dindi li jaarul yoon ba mu des li jaar yoon ma ànd ci buñ ko mënta dindi du ci ànd waaye taxaw ne ooma ci ooma ci taxawaay moom du lislaam du njàngaleem sëñ bi mag ñi tam jàngaleem loolu defi la waaye nag il faut que ñu xam politique ni ñu koy defee ñu bàyyi xel ci ne politique fànn la boo dañ koy jàng di ci def gëstu yu xóot loolu tam balaa ñu cee dugg day laaj nag noonu xam ko xam ci lu baree bari ba xam nañ koy jëflante ak ñoom beneen défi bi nga xam mooy bu juróom-benneel bi xëy na bu ñu ci noppee ci la ñuy tëje te mooy bi gën a siiw jamono ji mooy li ñuy tuddee ñuy song yoonu murit ñi nga xam dañuy wax ne dañuy attaqué yoonu murit moo xam dañ koy bind moo xam dañ koy wax muy tomb boo xam ne nii mat naa waxtaan ci tekk ak teey te liñ ci wax ñu teg ko ci mu xel bañ cee gaawtu ndax bunt la boo xam ne nii mën naa ubbi danger bu mag a mag suñu biir te am na nuñ koy songe tam nag la muy jur ci safaan moo ëpp la muy jur ci lu ci ci ci la muy defal moo tax ku ciy wax war na loo moytu bu baax ñi ñi xam dañoo fanatique ñu ëppal ñi war na noo moytu bu baax ñu nga xam ne nii dañoo ay dogmatique lañ maanaam mooy ñoo xam dañoo seen pas-pas dëgër na lool waaye nag dara ci xel da caa néewut ñooñu war nañu bàyyi xel baax baax ndax ñooñu dem dañoo ne suñ biir te tomb bu mel nii bu jógee léeg-léegi dañ ciy wax ay kàddu yu baree bari ba muy jur lu bari bu fekkantee nit ki nag dafa nekk nit ku fanatique mooy koo xam dafa pas-pasam teguwul ci xel lenn ci xel néew ca dafa nekk ku ko ëppal léeg-léegi na muy réagir na muy tontoo wala na muy réaction réaction ba muy def léeg-léegi day jur safaan ci biir suñu doxin nit ñooñu ngay gis suñu biir nag mooy waral léeg-léegi ku jóg ñu tuumaal la façon nit ñooñu ku jóg ñu tuumaan la léeg-léeg sax ñu tuumaal la ci loo xam ne doo laaloo ci dara waaye nag duñ ko teg cim xel ndax dañu yàpp ne rek ñoom ñu leen gisee ku gisewut noonu rek war nañ laa tuumaal ne la bokkoo da ngay attaqué sëñ bi da ngay wax nangam nangam da ngaa bañ murid yi da ngay wax yu mel moo tax loolu lu mat a teelu la te waxtaane ko ci kii buñ ci doon joxe misaal man joxe man la ci misaal day man su fekkoon ne maa man sama wërd sama wërd may wërd ngoon mooy daal sëñ beeg a baax. am na tey ñoo ko doon wax Sénégal man ne man de sëñ beeg baax dong laay wërd ñun la yow de xamoo sëñ bi sëñ bi weesu na baax waaw moom wees baax moom boo ko weesoo loolu loolu ëppal la wax dëgg yàlla koo gisin boobu maanaam lu dangereux la ci yoonu murit ñu war lu ñu war a bàyyi xel am na ku ma ci a yéeme noonu nee na toog ci jotaay ku doon def conférence ci sëñ bi ba mu ñëwee mu def laytaayam daal di commencé waxtaan wi bi mu tàmbali wax daal ne ah, de nit la woon koo xam ne nii mel mag mag mag daal di jóg dagg micro bi ne ko ah, dégg leen nee na bi nit la woon loolu muy ëppal ñooñu façon yu mel noonu wax dëgg yàlla ñu ngi ci biir te ñooñu léeg-léegi dañuy indi ay yoo xam ne nii la muy defar la muy yàq moo ko ëpp kon il faut que ñu bàyyi xel ci ni ñuy ni ñuy traité ñi ñuy wax dañ naan dañuy attaqué yoon murit ni ñuy ni ñuy ñoom moo tax ñun bu ko jàngatee dañ koy defi xaaj def nañ leen lu mat juróomi xaaj xaaj bu ci nekk nag nañ war a jëflanteeg moom bokkut ak nañ war a jëflanteeg morom ja bu ci nekk dañ koy tudd tëje ko waxtaanu moo tax biñ ko jàngatee def nañ ko ay xaaj def nañ ko. lu ci juróomi xaaj sëriñ fàllu xaaj bu njëkk bi mooy ñan xaaj bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne nii seen maam ba sëñ bi taxawal yoonu murit ñoo ko sëñ bi àndoon ñu ànd kook sëñ bi seen bàyyi judd ci yoonu murit màgg ci ñoom seen bopp ñu judd ci yoonu murit màgg ci ñu yar leen ci yoonu murit waaye na ñoom dem nañ ba gis ne am na dugg ci biir njàngale mi loo xam bokkut ak li sëñ bi jàngale woon ñoom ñu laxasaayu def seen yéene ci ne ñoom lii gaa yi bëgg a dugal ci njàngale mi te bokkut ci li sëñ bi jàngale woon danañ ko fësal ba ñu xam ne bokkut ci li sëñ bi doon jàngale ñu bari nañ ñooñu da ngay gis ñu daal leen tuumaal ne ñi dañoo dañoo dañoo arabe dañoo nangam wala arabe sax wala yu mel noonu dañu leen tuumaal daal ne leen bokk dañoo nangam ak nangam dañoo weddi mag ñi dañoo weddi sëñ bi te ab kuréel lañ ñu il faut ñu xam ne ñu jëflanteeg ñoom ñoom dafa am ni ñu war a jëflanteeg ñoom daañ ci ñëw ci kanam am na ñoo xam ne nii ay nitu boroomi xam-xam lañ ay professeur de l'université lañ maanaam ay universitaire ay universitaire lañ maanaam ci jàngukaay yi mag yi fa la ñuy yëngutoo ñooñu mën na leen a xaaj ci seen biir ñaar am na ñoo xam ne nii bu ñuy jàngat yoonu murit dañ koy jàngat en tant que phénomène social phénomène social nag mooy moo xam boo koy jàngat da koy melal na ko gisee na ko gisee ñu koy dundee noonu noonu nga koy waxee te ku ne xam ne ne yoonu murit ni mu ngi koy dundee ñun nii boo ko waxee noonu rek ki xam li sëñ bi jàngale danaan la yow da ngay sosal sëñ bi sëñ bi waxul loolu loolu benn groupe lañ beneen groupe ba ca des mooy ña nga xam ne nii dañuy jéem a dellu ci li sëñ bi doon jàngale ca cosaan la fes ko yéenee fesalaat ñooñu dem ku nekk xam na ne boo andee la sëñ bi doon jàngale dëgg-dëgg boo ko comparé ni ñuy dund ñun tam day wuute bu ko defee ñu la yow tam da ngaa contre murid yi ni ñuy dund da ngaa ngay dal ci yoonu sëñ loolu ab groupe lañ kon nga xam ne ñu jëflante ak ñoom kon ñooñu il faut que ñoom dañu xam ne ñooñu ñooñu ak groupe lañ mooy ñi nga xam seen ay borom xam-xam yu kawe te am lu ñuy waxtaane seen biir te séddale leen ñaari xaaj yooyu am na nu ñu war a jëflante ak ñoom. ñetteelu groupe bi mooy ñi nga xam ne ñi ñoom dañoo xamul dara ci yoonu murit ba noppi xëy na am nañ waxukaay wala boog tegal nañ ñeen waxukaay nuy wax di jéem a ci yoonu murit ba wax ca loo xam waruñ koo wax. ci te ak ñàkk xam moo leen ko yóbbee ñu ne leen daal ci kaw murid yi beneen groupe bi mooy ñi nga xam ne ni ñoom jàng nañ lislaam ba xam ko jàng nañ tasawuf ba xam ko mën naa am sax am na fuñ bokk ci ngiri tasawuf yi waaye nag yàlla dafa def seen xol bëgguñu sëñ bi bëgguñu murid yi loolu am na ba tax ñuy jëli kàddu di ko teg ci kaw murid yi ñu dem am na nu ñu war a jëflante ñoom juróomeel groupe bi mooy ñi nga xam ne nii ñoom dañuy toog rek yor sa téléphone bi di manipuler wala ngay def yu mel noonu ba mu jékki jekk rek maanaam benn xalaat ñëwal la nga bëgg a siiw rek nga ne naa ko bind daa koy bind daa koy wax lu doy waar daal di posté sànni ñu publier ko bu ko defee nit ñi topp tey commentaire te yow sax mën naa am bu ñu ko toppoon ba mu sës yow doo doon ko am solo loolu tam groupe lañ boo xam ne nii war na nañu xam kon juróomi noonu ci ay pàcc juróomi groupe yoo xam ne nii bu nekk war na noo xam na ñuy jëflante moom su fekkee jëflante ñu doon tontu leen tontu li mooy jur safaan bi ab safaan day jur ñi nga xam mooy groupe bu njëkk bi te mooy ñi nga xam ne nii ñoom danoo bokk ci judd ci yoon wi seen maam bokk ci ñi sos ci yoon wi wala bokk bokkoon ci ñi àndoon suñ bi muy sos yoon wi ñoom ñu judd ci ñu yar leen ci bañ xëy nekk ay mag dem na ba gis ne loo xam am na loo xam jàpp nañ ne wuute naag li sëñ bi jàngale ñu bëgg koo leeral ñooñu dañu leen war a déglu ñu ñu war a déglu lañ mooy mooy wa shahida shahid alia loolu mel noonu ñu war a leen a xool ba xam la ñuy wax waxtaan ci ak ñoom ba xam nuñ fuñ ko teg ak nañ koy waxe waaye na su fekkee dañ leen daal attaqué rek nit ñi dañuy attaqué yoonu murit daal leen di ber dañuy perte ci ñoom lu baree bari tey am nañ ay kilifa yoo xam ne nii xam nañ leen yoo xam te waroon nanoo mën a jariñ lu bare bare bari yoonu murit ci wàllu xam-xam ak wàllu gëstu luñ ci mënoon jariñ ñu mën koo jariñoo te mënuñ koo jariñoo ndax ber nañ leen ne dañuy dañoo dañoo contre sëñ te fekk na ñoom kenn mën leen génn ci yoon kenn mën leen cee génn ndax ëllëg si mën ñoom bu ñu faatoo tam Touba wala dañ fii lañ leen denc Touba gi lañ leen denc mën leen génn ci yoon kon ñooñoo defe naa ne jéem leen a xool déglu la ñuy wax ba xam am na fu mu tegu la am fu tegu bu fekkee daa am fu mu tegu nag ñu nangul leen ko ah ndax ñu nangu leen ko ndax fekkee dañoo gis loo xam leer nañ lii wuute naag li sëñ bi doon jàngale te mi ngi commencé siiw ci biir njàngale mi feeñal ga wàññiwu dara ba ñu ko war a xam-xam ko loolu dañ leen koy nangu waaye nag jékki-jékki rek ber leen ne leen yéen bokkatu leen ci fi ndax da ngeen da ngeen wax lii ak lii loola dañ ci jural dañ cee perte loo xam ne nii waroon nañ ko mën a jariñoo beneen kuréel gi nga xam ñoom ay universitaire lañ ñooñu ku nekk xam ne ne ñooñu ay gëstukat lañ gëstukat nag mu am mbooloo ñaare ñooñu lañ ci mën a delloo mooy ñu fexe ba former ay gëstukat yu mel na ñoom ñiy toog fa ñuy toog di waxanteeg ñoom di tolloonteeg ñoom ci yoon woo xam ne ni ñoom dañ koy xam bu ko lañ leen di wax ñoom dañ koy di jàpp ci maanaam directement ndax dañ koy nangu ndax ñooy dañuy xam ne ñii seeni i nattangoo lañ seen i naw lañ ëpp luñ leen ci genn fànn te mën nañoo wax ak ñoom te lépp lu wax mën na leen a kon formation la laaj ak xóotal njàng ak xóotal gëstu bi bañ am ñu mën a jàmmaarloo ak ñooñee buñ bindee ñu bind buñ bindee téere ñu bind bu ñu defee déclaration ñu def bu ñu waxee ñu wax buñ toogee ñu toog ak ñoom fas bu ñu layee ñu lay ba kere ñuy gis ku ci yay moroom ci loola yoon la woo xam ne ni yàgg na ci lislaam ñu yàgg ko jëfandikoo ñu ko daan tudd munaza loolu yàgg na ci te ñu bàyyi xel nag ne ñu sax la ñuy waxtaan li ci ëpp li muy génn li muy génn cadre université bëriwul ñaare ci seen biir lay yem ndax ñoom ab groupe lañ maanaam ñu nga boo xam daanaka seen groupe bopp lañ lañ fay bind di jëpp ay thèse la yoo xam ne bu ko bindee ba noppi dañ koy roof ci ay trois dañ koy roof ci bibliothèque ña fay dem dong daa ñaari daanaka ñu ëpp ñu koy jariñoo kon ñooña seen jaww bopp la boo xam ne nii dañuy am ñu mel na ñoom ñu leen di fekk foofa waxtaan ak ñoom di gindi ci sëñ bi di leen tonton ak ñoom ba convaincre le ndax borom xam da koy convaincre ci xel waaye am na nit ñoo xam ne ni fi mu nekk nii boo leen doon rey itam ci force ñoom lañ doon wax tax ñu bàyyi waaye mu jaraat nga toog ak ñoom waxtaan ak ñoom indi leen argument yu leer nañ naññi ba mu leer seen bopp lañ nekkoon dañ koy bàyyi bu dee borom xam-xam dëgg-dëgg lañ jàppoon dañ koy daal di bàyyi fekk si la ci yow xam ne li nga wax yoonu maanaam kon ñooña doole du jëflante ak ñoom xel ak xam mooy jëflante ak ñoom bu dee ñetteelu catégorie mooy ñi nga xam moom dañoo xamul dara ci yoon ñooñu itam fi la xeexat dafa am lu ñu war a jëflante ak ñoom ñooñu fi mu nekk duñu leen duma duñu leen def leer nañ leen fexe ba xëcc leen jàngal leen njàngalem sëñ bi ci njàngale mu tegu ci xel dileen ko leeralal ba mu leer seen bopp ñu ci bari ci ñoom mën nañoo wàññi ko booba am nañ ci misaal mu leer nañ mooy kay fekkoon yéen sallallahu alayhi wasallam ci biir jum ba jàkka ja ñu ne ñu ne ku jógewoon ci àll ba la ñëw xamul dara ci diine xamul dara ci yenn yi ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw am lu mu def ci biir jàkka ji maanaam tuur ndox ci biir jàkka ji saxaaba yi fi nekkoon bëgg a jóg bëgg a jëflante moom ci dooru dóor ko yéen leen bàyyi leen nañ ko leeral mu woo ko mu ñëw leeral ko nekk kat nangam ak nangam fii jàkka la wax ko lim yeyoo ca la jaaree dugg ci lislaam loolu loolu loolu am njàngale la moo xam ni war nañ cee mën a jaar ci di jëflanteeg ñi nga xam ne nii danoo xamut sëñ bi ñu leeral leen ko ci am njàngale moo xam ne nii day tegu ci lu leer nañ boobaa mën nañ cee jël ñu bare bari récupéré lañ bu dee ñi xam ne nag moom xam xam xamee waaye ñëpp xam nañu yàlla ñoom ak ñooñu doon doon xuloo ñoom du xeex ak ñoom nañ leen xamal ne duñ seen duñ seen i noonu ñoo ngi yow yéen ñoo bokk diine gàtt gàtt ñëpp ay jullit jullit kon kon ak jullit jullit te mën a a bañ morom itam ne waxtaan la waxtaan la laaj bañ leen wan ne ñu bañ bañ bañ loolu loolu loolu tontu am sam sam nañ leen xamal ne ak mbañeel bu duñ seen diggante yéen seen i kilifa ñu leen leen def yéen seen seen bopp tam kenn ma ñëw bokk seen diggante wax wax leen tam li sëñ bi jàngale te it bàyyi xel ci nag ne ñoom ñoo ñooñee ak mbañ ak seen bi saa yu xëyee dañuy gis ñuy gën di avancé loolu tontu loolu nag bu ñuy wax dañu leen bàyyi ñuy gis waaye li wax ak ñoom di ko jëfandikoo ñoom na doon loo xam ne ñu xamal ni ñun sëq ñoo yéen ak noononte waaw bu ñu bàyyee ñu bu ñu leen loolu defe naa bu ñu ko defee ñoom itam ñu bare bare ci ñoom wan bés dana ñëw ñu wàññi ko xam ne ñii jëflante ñoom ñoom ni ñuy jëflante ak ñoom beneen juróom benn ñi xam ne moom li ñu tuddee ay réseaux sociaux yi te muy loo xam ne ñun dañ ciy passé temps bu baree baree bari ci di leen tontoog di ko discuter maanaam nga xam ne daanaka jataay boo toog diw xanaa déggu leen diw la mu wax démb ci la mu posté waa ji la mu wax ca YouTube bi nangam mag nangam nga xam dañuy jël énergie bu baree bari di ko def te ko maanaam ñooñu dañoo jërta tontu jëruñoo tontu ndax ndax tontu leen mooy may leen lañ bëggoon ñoom ñoom li ñu bëgg mooy ku leen tontu ma ñoom ba nombre de vues yi ñu am ci seen vidéo ba ñuy posté mu yokk ndax ku ne xam ne loolu dañuy ci commerce léegi ñu xam ko loolu loolu dara maanaam nit ki da def ngir ña koy dugg ci maanaam vidéo bi gën bari ba tax lam cee gañe mën a gën a bari ñooñu bu ñu leen ko may kon ñooñu dañoo jër tontu dañ bàyyi xel ci ne ñuy gëstu xam-xam dëgg dëgg dëgg moo amu ci kenn koo xam ni foofu ngay dellu sa delluwaay ñiy gëstu xam-xam moom seen delluwaay du du internet wala bokk du ay post yi ñuy posté vidéo wala audio bu ñuy posté wala yu mel noonu déedéet loolu xëy na nit ñi dañ koy dégg nga di ko féexal seen xol ak yu mel noonu waaye amu ci kenn koy jàpp kon ñooñu jëruñ passe temps boo xam ne dañ ci yàq temps te li ñuy yàqal day bëgg a bari tontu gi loolu daf ko jërul kon ñooñu moom da leen di bàyyi ñuy wax ngay def li ngay def te kenn mën leen dee wax na ndax fi ne am ñu bari bari ñoo xam ne nii fan yi nekk sax mënoon nekk fu sore sore foo xam sore nag Sénégal loolu lool te te boo demoon ba àgg ci ñoom duñ doon doon nit ñu am solo sax duñ doon nit ñi ñuy déglu ñu am solo ñoom nag jëluñ passe sa temps di ci def yenn kii kon loolu mooy juróomi xaaj yi ñu ko xaaj xëy na bu nekk ci ñoom ak ni ñu war a jëflante moom kon daal li ñuy bañ foofu rek mooy li ñuy wax ak taxaamul bi maanaam ñu moytu fu ñu toll ñuy moytu jëflante ci nit ki nu ku ma wokk ku ma xori la loolu du jëflante bu am solo nit bu la wokkee te wokk laa wër laa wokk donk daan nit boo wokkee wokk nit bu ko wokk leeral ko ba bu ëggee dootu la wokk waaye nag ñu bàyyi xel ci ne stratégie de guerre mooy nit ki fexee la ba sa manin bu mu la ci génne yóbbu la ci maninam nit ku nekk boo seq ak moom jëf bu fexee ba génne la ci sa manin yóbbu la ci maninam dalay gàññe ci lu gaaw a gaaw moo tax lu liñ ñu yare nu xam ko muy teggin yi sutura si maanaam wax ju rafet ji waxin wu yaru wi loolu nan fexe ba buñ ci kenn génne ndax am na ñoo bis bu ñu xëccee ba dugal ñu ci jokkalante kàddu yu ñaaw daañu la wax kàddu gu ñaaw goo xam ne yow da ngay jaral na la xaru maanaam faatu moo lay gën a dégg kàddu googu te boobaa ma lay doon kon suñu Murtada noo ngi yemale kàddu gi foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Sëriñ Murtada ñoo ngi yemale kàddu gi foofu jërëjëf sëriñ Fallou Bousso moom sëriñ Hassan Bousso ñu ngi rafet lu baax waxtaan wi di ñaan suñu borom defal na ci ak dégg ak topp. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi niñ ko leerawan ca njëlbeen ak waxtaan wi xamle woon ne ca émission bu njëkk bi waxtaan wi ñaari émission lan am pas-pasab séddale ko ci démb ci waxtu wi moo nekkan émission bu njëkk bi tey jii moo doonal ñaari émission bi nga xam ne moo doon mottalu waxtaan wi li ñuy tëje waxtaan wi nag ñu delloo kàddu gi sëriñ Mourtala mu tënkaatal nu tomb yi nga xam ne moom la sëriñ bi doon waxtaane su ko defee kenn ku nekk nu nag euh, na nga koy jàngate ak na koy dégge ak na nga koy jàppee loolu lépp kenn ku nekk nu nag nga gën ko diglu gën cee defaat tam bu baax a baax ak seetlu te xam ne lépp rek suñ njariñ la kon sëriñ Mourtada nu joxuloo kàddu gi nga yëkkatil nu jataay bi kon sëriñ bi bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Fallou Ah, jërëjëf waxtaan wi am na solo lool niñ ko junjee woon ci tàmbale bi doon wax ne ñi ngi sàkk ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi koy topp te dégg tomb boobu ni ñu ko tuddee ñu bàyyi ko xel bu baax a baax yaakaar naa ñi ko teewlu ñëpp gis nañ ne tomb bi nga xam ne Sëñ Fallu leeral na ko fii tey jii day loo xamante ni yaakaar naa murid yëpp wala boog ñi xam-xàmmee ñëpp seen waxtaan la. buñ toogee léeg-léeg ci biir jamono ci biir jamono da nga dégg ñuy jàmbat yu bëree bëri ci jafe-jafe yi nga xam ne taxaddiyaat yi nga xam ne wax nga ko fii te muy lu nga xamante ni yoonu murit mu ngi jàngonte ak moom kon day waxtaan wu am am solo woo xam ne warees na cee bàyyi xel bu baax a baax boo xoolee sëñ Fallou mi ngi ko tàmbaleeg ñun ci tamxit boo xam ne daf cee wone ne yàlla ci boppam moo bindee àdduna noo xam ne yi fi nekk yépp dañuy jaar ci ay atuwaar dañuy jaar ci ay ay jamono yoo xam ne léeg-léeg ay soppeeku day am mbir day tàmbale dem ba yàgg la laneen lu ca mu amuk soppeeku maanaam laneen loo xamante ni bokk ci woon ñëw nekk ji bu ko defee te loolu tax ko woon a jug kon faw mbir moomu ci boppam wara a jug nag xoolaat moom ci boppam nan lay def ba dellu ca cosaanam la nga xamante ni moo doonoon jël bennam loolu joxe na ci ay misaal yu bëree bëree bëri ci maanaam évolution yi nga xam ne mooy am ci doomu aadama yi ak ci mbooloo yi ci jamono kenn ku ne xam ne ne jamono ju ne euh, wala ci jamono yii ñu nekk ay ay azamaat bari na ci ay crise bari na ci ni mu ci joxe ay misaal adduna tàmbali woon noonu adduna li mu tàmbaloo woon mooy nit ñi di dund ci jàmm waaye ñu dem ba yàgg nga gis nit ñi di am ay jafe-jafe yoo xamante ne ni euh, doonul woon yoon muy am mu joxe ci misaal ci jamono jii ñuy dund danga gis ne. danañu fekk nit ki nga xamante ne ni mi ngi si jàkkaam di julli ñu jël bakkanam wala ki nga xam ne mi ngi jàngale ci biir école am wala ci biir daaraam ñu jël bakkanam yooyu yëpp di ay euh, soppeeku yooyu am yoo xamante ni day wane ne am na lu am loo xamante ni amutoon maanaam mbir yi mi ngi doxe noo xamante ni euh, deme demewutoon noonu loolu danay am ci nit ñi danay am tamit ci nature bi ni ko yàlla bindee. day dema dem ba yàgg nga gis yi fi jaar yépp ci mbas yi nga xamante ni jaar nañ fi ak guerre yi nga xamante ni jaar nañ fi indi ay soppi yooyu nag saa su amee dafa am ay soppi yu muy indi ci àdduna ci côté boobu mu lay taayal la waxtaan lu am am solo la maanaam ñun ñi ngi dund ci jamono joo xamante ne nii faw ay soppeeku dana am ci kanam soppeeku yoo xamante ni yow ngay jenn jëm wala ngay mbooloo te fii mbooloo mi moo ñu moo ñu soxal muy mbooloom yoonu murit faaw ay soppeeku am yoo xamante ni bu yoonu murit taxawaatut taxawaay bokk ba nga xamante ni moo doonoon taxawaayu cosaanam bu moytuwul rek dana sooxe ni mu ko waxee léegi bu moytu li ñuy wax saxaar gi dana dem dana dem bàyyi la fi rawatina nag euh, situation bii nga xam ne moom la ñuy dund fi mu ne nii muy jamono yi ñuy dund lii ñuy wax pandémie coronavirus nga xam ne àdduna jëpp a taxaw te junj ko wax ne mësee suta fàttaliku ci àdduna foo xamante ne nii moom jafe-jafe crise àgg na ci ñu taxawal àdduna bépp tey ji benn benn avion naawatut frontière yëpp ñu tëj ko liñ liñ mii noon mooy mu am ci ab diggante ñu ne réew sàngam wala continent sàngam kat am nañu ay jafe-jafe ci nangam ba tax na taxawal nañ kii ba waaye tey jii mu mu daj àdduna jëpp ba kenn mënta te dem fenn raw yemul ci frontière waaye ci sa biir réew mi nga dëkk sax diggante régions yi ñu tëj ko tëj diggante dëkk ak dëkk ba daanaka àgg nañ ci tëj nit ñi ci seen biir kër yi li ñuy wax confinement bu même bul fekkante ne réew yi euh, wuute nañ ci. loolu lépp lan lay tegtale day tegtal rek ne am na ay soppeeku yu ñëw yoo nga xamante ne nii euh, faaw mu laal nit ñi faaw tamit mu laal mbooloo yi ndax bu kuy topp information yi da gis ne réew yëpp ñu ngi tàmbalee di waajal seen bopp. rawatina réew yu mag yi ñu ngi tàmbalee di waajal seen bopp ci nan la ñuy def ginnaaw bu mbas mi jàllee nan la ñuy taxawaatee ci ci wet yu ne nag ci wet yu ne li ci gën a not ñoom côté économie la ñuy wax waaye da ngay gis ne ci wet yu bëree bëri ndax mbas mi wan nañu ñun rawatina dëkk yi nga xamante ni ñoom la ñuy wax les pays de tiers muy réew yi nga xam ne dañoo néew doole daanaka ñëpp ñi ngi tàmbale nag di poser ay questions di wax ne ah lii kat buñ ci jógee war nañoo soppi aw doxalin ndax kat ndekete àdduna bi niñ ko doon doxalee ak ni mu waroon doxee doonul noonu ndax ñëpp gis nañ maanaam mbas mi dëgg la. li ñuy wax euh, mënees na ko tuddee euh, ni'matun fi tay ma metti na waaye bu buñ xamee ni ñuy jëflante ak moom buñ ci génnee danañu jural njariñ lu baree bëri ndax bëri na yoo xam ne dañ ko jàppoon ni nii la war a doxee te tey jii wane na ne warut a doxee noonu ay question yu bëri ay masala yu bari yoo xam ne nit ñi daan nañ ko jàmbat di wax ne warut a demee nii am ñaneen ñu taxaw ne nii la war a demee tey àdduna jox na dëgg ñi nga xam ne waxoon na waroon na warut a na demee nii ci misaal suñu réew mii di Sénégal. niroo ceeg réew yu bari ci réewu Afrique yi li ëpp ci seenu dund dañ ko daan jéggaane te moo ne de yàlla jox na leen luñ ko mën a defee fii nii tey jii wane bi ñu tëjee àdduna bi yëpp wane nañ ne lii bu woyee tuuti rek wala yaasu billaahi taala kon war naa tax ñu taxawaat buñ jugee ci lii te ay tëralin yoo xamante ne nii bu ëllëgatee bu lu mel nii amee du demee nii ci kaw loolu nag biir tarixal muridiyya ci boppam moom itam mi ngi dund ci jamono ci biir azamaat yi yëpp. dundin woo xamante ne am na lu fi nekkoon loo xamante ne ni tey jii bi liy xewee wala boog def na fi lu nga xamante ne ni bokkut ak ni ko sëñ bi bëggee woon ba tax na yii yëpp buñ ci génnee bu ñu delluwaatut ci la sëñ ba euh, tëraloon bu soobee yàlla boo moytuwut danañu am ay jafe-jafe yu bare bëree bëri loolu ci ci tàmbale gi rek ngir dugal ñu ci moo dox bi rek muy tamhid boo xam ne bu leer nàññ la won la ne na yow mi ne ci àdduna dafa am noo war a doxee am noo war a mel ndax yàlla dafa bindee àdduna noo xamante ne nii boo taxawul taxawaay yooyu faaw yow yaay gaañu ndax yàlla moo bindee moo bindee noonu bu fekkente ne dégg naa bu baax sañ bi ni mu doon ni mu doon dugalee euh, ni mu ñu doon dugalee ci biir ci biir ci biir waxtaan wi waaye nag mu tënk nag jafe-jafe yooyu nga xam ne moom la yoonu murit di jànka di jàkkaarloo laataa mu ci ñëw mu waxal ñu lan mooy murit ya bu ñu waxee yoonu murit ci boppam lan lañ ci jublu mu tënku tënk bu leer boo xam ne ku dellu ci mbindum sëñ bi fekk ko fa muy ñu nekkul ne ñun ñoo war a wax lan mooy murit ñun ñi nga xam ne dañoo wax ne ay murit lañ wala ñi nga xamante ne ñi ngi ci bitti sax ñoom du ñoom ñoo war a définir al muridiya muridiya ki ko woote kooku moom moo ko war a définir mooy Cheikh Ahmadul Xadim te leeral na ko wax na mooy lan ñu képp koy gëstu te amum xel tamit da gis ne maanaam lu leer naññi la lu leer naññi la Sëñ Tuubaa ko ci ne al imaanu bi tawxid al islaamu bil fiqh ak al ihsaanu bi tasawuf yoon la wax ne dafa tënku ci gëm yàlla jaa di ko jaamu ci ni ko lislaam tërale waaye nag teg ko ci anamu rafetalin woo nga xamante ni du bàyyi dara léppay rafet mooy tasawuf gi nga xam ne euh, euh, lu lu xóotu xóot la lu lu yàgg lu yaatoo lu yaatoo yaatu la léegi nag jafe ji jafe-jafe yi nga xam ne moom la yoon woowu di taseel te muy yoonu murit nga xam ne sëñ tubaa bi ko ni mu ko waxee bi ko ko ab tubaab laajee leeral ba mu ko ca leeral mooy loolu wax ko ne day yoon woo nga xamante ne ni ci gëm yàlla la tënku ak jaamu yàlla te rafetal jaamun wi ci jaamu yàlla ci max naa yi mu tënk yëpp waaye muy yoon woo xamante ne tam li ko tax a jóg mooy defar nit defar yaramu nit defar am xelam defar ak ruuxam ba mu amal njariñ boppam amal njariñ fi muy dund amal ko amal ko àdduna jépp léegi nag jafe yi nga xam ne moom la yoonu murid di tënk moom daf ko ci kaw ay ay laaj te muy muy méthode bu solo muy ay laaj yoo xamante ne ni buñ ko tontoo danañ mën a tontu ja danañ mën a jàkkaarloo ak dëkk yi nga xamante ne nii mooy dëkk yoonu murit boo xamante ne ni tontuwuñu ko nag bu boobaa li muy tegtale mooy yoonu murit boo moytu dana dund ay jafe-jafe yu bëree bëri. yu mel noonu nag buñ ko waxee ci ñenn ñi baat yi mën naa xaw a rëy ci ñoom waaye jërul muy rëy buñ ne yoonu murit mën na dund ay jafe-jafe. mi ngi koy dund sax ndax lislaam ci boppam mi nga xam ne yoonu murit du lenn lu dul beesal ko lislaam ci boppam mi ngi dund ay jafe-jafe yu bëree bëri dafa am bis ma ci waxtaan ak benn genn kilifa ci waa dëkk bi mu ne ma yu bëree bëri dañ koy wax di ko wax di ko teg ci ak daanukat rek nan mënta am mu ne ma ana alxilaafa al islaamiya li fi yëntu bi fi yëntu salaam jógee Seydina Abubakar wuutu ko Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Aliou ca la jeexee fa la yem bañ fa bañ ci jógee lépp dafa tasaaroo la ko def mooy dañoo wàcc yoon wi dañoo wàcc yoon wa nga xamante ne ni moom la ñu waroon a jaar kon kenn warta wax ne yoon wi amuti jafe-jafe dëgg wér a wér dafa am ay jafe-jafe te jafe-jafe yooyu dañ ko war a dañoo war a jàmmaarloo ak moom ni mu ko leeralee ne taxat eh, taxaddi buñ ko waxee baat ci baatu arab mooy li nga xam ne dafa ñëw taxaw ci sa kanam bëgg laa tee dem te kenn ku ne xam ne yoonu murit aw yoon la boo xam ne Euh, nature am maam ni mu bindoo day luy dem ndax ab woote la boo xam ne dafa jug ngir defar àdduna kon dafa war a dem lépp lu taxaw ci kanamam bëgg bëgg ko tee dem war naa seet anam gu muy jàkkaarloog loola ba jàmmaarloog moom ba wër ko ba dem. mu joxe ci ay misaal ni nga xam ne Serigne Touba noonu la def bi mu jugee rek woote yoon wi ci kanamam ay taxaddi yu bëri taxawoon na fa mu bi ci gënoon a fees doonoon tubaab yi donte doon tubaab yi dong ndax ñim jamonoonte rek dégguñu woon loolu waaye teewul mu def taxaddi. waaye tubaab yi nga xam ne nag ñoom ñoo indi woon masron ndax suñ tubaab masron la indi maanaam projet de société la indi luy defar àdduna lay indi am ñoom fi nekkal ñoo xamante ni bokkut ak ñoom gis-gis muy tubaab yi ñu bëgg gàntal aw yoonam waaye dafa jug taxaw jàmmaarloo ñoom ni mu ko leerale ne di mooy lan maanaam yoonu murit war noo ñëw jug jàmmaarloo ak dëkk mooy jafe-jafe yi taxaw ci seen kanam bañ bañ ñu dem te bu buñ ci ragal dara buñ ci yox yoxi dara ni nga xamante ni suñu sëriñ bu tedd bu baax bi noonu la ko noonu la ko defe woon ci ak njàmbaaram ak ci xam-xamam waaye loolu lépp nag da ko da ko teg ci xel ak xam-xam ak nangu dogalu yàlla ci la ko teg kon mënta ngir ñu mën a def loolu faaw ñu jaar fi sëñ bi defoon fi fi sëñ bi jaaroon kon daal ñu xam ne toll nañ ci jamono boo xamante ni buñ ci jógee xat yi am mënta ñàkk maanaam faw yëf yi warut a doxee nam daan doxee faaw ñu muraajaa yu bëri yu bëri yoo xamante ne nekkoon na ci yëf yi te demutoo demewutoon noonu te yu bëri waral ko la ca gën a leer sëñ bi sëñ fàllu leeral ko mooy xitaab bi nga xam ne mooy am ci yoon wi. mooy discours bi ñu jàllale ci yoonu murid bi dafa sori lool lool man ci sama setantal ak yu ñu bëri xitaab bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa doon jàllale ak bi nga xamante ni ñi ko fi wuutu woon xalifaam yi tamitam ñoom lañ doon ñoom lañ doon jàllale kon mënta ñàkk xatiya am bu ñu jógee ci lii ñu delluwaat ca usul ya maanaam ca euh, fondement yi nga xam ne ci la ki nga xam ne moo sos yoon wi ci la ca ci la ko fonde woon loolu nag nan lañ mën a amee faaw ñu tontu laaj yi ci tënk rek xam naa duñ mën a jaaraat ci lépp waaye waxoon na ne maanaam bu ñu fii ñu jëm ci kanam ndax xitaab bii ñu yor ni ñuy waxee ci yoonu murit xitaab boobu mooy continuer wala dafa war a soppeeku yaakaar naa ne dafa war a dafa war a soppeeku yaakaar naa moom mooy mooy mooy tontu li bokk na ci laaj yi mu laaj itam li tax ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal nekk ci réew mi moo xam ay jullit lañ moo xam ne dañu ay jullit gis-gis bi ñu am ci yoonu murit gis bi gis-gis bi ñu am ci ñun ba jàppe ñu ñoo xamante ni dañoo jàppe seen bopp ñoo xam ne tënkuwuñ ci loi maanaam lu leen neex lañuy def te loolu booy dox ci dëkk bi danga koy gis am na ñoo xam ne duñ la ko ñemee wax saraaxatan ci mu leer nañ ñi waaye dana gis ne danañ la junj ne yéen dafa mel ne da ngeen yoru dëkk boo xam ne seen yëfi bopp ngeen yor da ngeen ne ci réew mi lu ngeen bëgg ngeen di def lu leen neex ngeen def te kenn mënu ci dara danañuy léeg-léeg dañuy jéem di ko boros masalan ji xeetu oto yi ñu fi jaay ci dëkk bi rek dana bëri ñu ciy jaaye ñu ciy jaare di wax yu mel noonu mel na Touba day dëkk boo xamante ne ni nga xam ne faawu yow itam nga ñëw leeral la ne leen loolu nekkul loo xamante ne ni waa dëkk ba ñoo ko ñoo ko jël ay nit ñoo ci profité rek di ko def waaye nekkul loo xamante ni lu officiel la lu am ca lu am ca dëkk ba kon ah, laaj boobu tamit faawu ñu tontu ko lu tax nit ñi jàppee ñu noonu bokk na ci laaj yi mu laaj tamit mooy lu tax réew mii ñu nekk muy réew moo xam ne dañoo wax ne république la maanaam ñëpp a ko bokk ay décision maanaam nit ñi tërale réew mi ni réew mi doxee li tax ñu di ko def te du kenn duñu ci laaj suñu xalaat dañuy jékki-jékki rek jël décision yi ndax loolu ànd na ak ñun suñu pas-pas ak suñu suñu njullite wala déet loolu lépp kenn duñu ko laaj te loolu tamit war nañ cee tontu nan la war a nan war a demee. ay itam beneen laaj bu am solo boo xam ne moom ci jamono ji la gën a fés maanaam ci at yi néew yi nga xam ne li ñuy wax réseaux sociaux yi bari na lu tax murid yi mujj doon. wasila mooy moyen bi nga xam ne képp ku bëgg sa mbir siiw rek ci ñoom ngay ñëw information bi gën a tuuti bu amee ci Touba da ngay gis ne presse bi ñëpp koy relier ba noppi nañ koy waxee nañ koy waxee dafa mel ne dañ koy def ci anam boo xam ne day ànd ak buzz maanaam day même bu nekkee lu ñàkk solo lu ñàkk solo rek du tee danañ ko xaw a rëyal ba ci koy dégg moom dana am lu mu lu mu def ci moom laaj boobu itam ab laaj la boo xamante ni ah, bokk na ci tontu ko bokk na ci ah, taxaddi dëkk yi nga xam ne mi nga xam yi nga xamante ni mi ngi dëkk yoonu mu murid sëñ bi tamit laaj na ci taxaddiyaat yi ndax bokku ci ndax jotut yoonu murid delloo feeñalaat bu baax dooley politique ak dooley économie ak dooley sociale ji nga xam ne moom la ko yàlla jox ndax taarix won na ne ba tey jii day mbooloo moo xamante ni li mu yor ci doore ci politique ak ci économie ak ci sociale yàlla def na ne fii ci réew mi ñoom dong ñoo ko fi ñoo ko fi yor donte la nag lu am am maanaam ñoom jëluñu ko jëluñu ko ci li gën a fës di ci xeex kenn waa walakin bil aks maanaam njariñ la njariñ la ci réew mi bu fekkonte ne ñoom ci seen bopp xam nañ ko bu baax ñeneen ñi ci des tamit xam ko maanaam yoonu murit dooleem njariñal réew mi la ginnaaw bi mu nekkee njariñal yoonu murit ba noppi dafa nekkaat njariñal réew mi léegi nag ndax jotut yoonu murit si boppam xamaat boppam dooleem jooju mu am dooleem jooju mu am mu feeñalaat ko bu baax a baax a baax ci nit réew mi di doxe buñ àggee ci di laaj réew mi ak ni ñuy tëralee réew mi nu muy doxe mu teg moom itam mu teg ay ay sartam ne man kat ci kaw anam yi laa koy laay àndeek nit ci anam yi laa dul àndeek nit képp koo xamante ne ni ànd nga ci ak man ma ànd ak yow ku mu ci ànd ak nga dem ma dem te ñëpp xam nañ ne yoon murit ku mu bàyyi loolu même ñi bokkul ci yoonu murit ñi nga xam ne dañuy analyser nii rek maaw doxe yan maanaam ñoom faruñu fenn dañuy wax nii rek dañ lay wax ne ku Tuubaa àndut ak yow mënoo falu ci réew mi loolu tamit bu ñu koy wax jubluwuñ ci maanaam song ñeneen ñi di leen xeeb wala dara déedéet day doole joo xam ne yàllaa ko def yàlla moo def ne moo fi nekk kon nag ñoom ñi ko yor war nañ koo xam téye ko jariñ ci seen bopp jariñ ci jariñ ci jariñ ci réew mi bañ a bàyyi réew mi ci loxo yi ñoo xamante ni ni ma koy faral di waxee ñaari ñun ñi ñuy ñi ñuy jiite mooy xale yi ngay romb fii ñuy dem école ab diir bu gàtt ñooy dugg ci politique bi wëlbati ko ñëw yilif ñu léegi ñun ñu topp ak seen ginnaaw te moo na yàlla xam na ne jamono bi ngay tolloo moom fii da nga ko daan sarax ak defe nañ joxe ndimbal ak defe yëpp waaye mu xëy suba rek nekk ministre wala mu nekk président de la république rek amul lenn lu soppeeku ci moom mooy xale boobu nga xam ne leer na la yaa ko ëpp formation yu bëri yaa gën a xam waaye da ngay topp ci ginnaawam yooyu tamit yu war soppeeku la réew mi ñoom ci seen bopp sax ñi nga xam ne ñoo ñoo gën a féete ci wet googu njàngu njàngu ñoo dem nañ ba xam ne réew mi nii muy doxe warul new doxe maanaam nit yi diine yi bu ñuy wax réew mi daanaka ñoom ñi nga xam ne ñooy dox te ñoom ànduñu ci ndax mbas mi am rek yaa ngi dégg fu ne ña ngi fay wootee tencee boole nitu diine yi ndax am na ci yoo xam ne ñoom la nit ñi di diglu koo xam ne nag nit ñi yow la ñuy diglu waroo xaar sax bañ di la woo waaye yaa war a taxaw sa taxawaayu bopp ni nga xam ne ni ñi fi jiitu noonu lañ ko doon defee bokk na ci laaj bi mu laaj ne mënta ñàkk mu am ñu tontu ko tontu lu leer ngir ñu mën a jàkkaarloog jafe-jafe yu ñuy tee dem muy war nañoo nag maanaam yeesalaat ni ñuy xalaatee yesalaate suñu xalaat te di du fikr almuridi faaw mu am ci li jëm ci yi nga xam ne mu taxayiraat la ndax alquran wala lislaam sax da ci am ay sawaabit yoo xam ne du soppeeku mukk waaye da ci am yoo xam ne day soppeeku ba jamono doxee tuuti waris na ko mën a seet ci anam go nga xam ne kenn du ko dindi waaye dañ koy méngale ak jamono bañ mañ koo gën ko mën a jariñoo loolu itam jafe-jafe la boo xam ne yoon wi am na ko mooy yu bëree bëri yoo xam ne nam daan demee ca ay jamono jamono laaj na mu am ay soppeeku maanaam kenn du ko dindi waaye ñu soppi ko ba nga xamante ne ni dees na ko gën a mën a dees na ko gën a mën a jariñoo yooyu mooy def yi nga xam ne moom la sëñ bi leeral na moom la yoonu murit di jànkaar jàkkaaru tey jii te ngir mu man koo mu man koo euh, jéggi wër ko ba euh, risaala maanaam mission bi ko bi nga xam ne moom la war a dox te mooy defar nit ak defar àdduna mu mën koo mu mën koo mu mën koo def andi nag yu bari yu nga xamante ne nii wax na ko ci ci ay ay amsila ay namazij ay misaal ay exemple yu wone ne lii taxaddi la ab dëkk la ab jafe-jafe la bu taxaw ak ci kanamu yoonu murit di ko dee def li nga xamante ne nii moom looy moo moo ko moo moom la war a def te comme ni mu ko waxee da ci am yoo xam ne ci suñ biir la am ci yoo xam ne yi jóge ci bitti la yi nekk seen biir nag ni mu ko waxee moo gën a jafe moo moom la ñu war a gën a sonn waaye nag moo gën a naqaree jànk jàkkaar lool ndax dafa nekk ci sa biir ndax nit ki taxaw seet boppam mu xaasaba boppam xam ne lii ne ci man jaaduwut mu bàyyi ko loolu moom lu jafe-jafe la ni ko sëñ Fallou leeralee daanaka ñun ñëpp dañuy wax naan nit ñi nit ñi rek nit ñi de moom dañoo doy waar nit ñi demoom moom nangam nangam te ñun ñooñu ñun ñuy wax loolu ñun ci nit ñi lañ bokk maanaam kenn ku ne war ngaa xool jafe bi am lan moo ci say wàll ba nga man ko dindi yoonu murit tamitam jafe-jafe yi nga xamante ne ni moom la am war na cee xool li nga xamante ni moo ne ci biiram mu jàmmaar la ko moom te loola la ca jiitu du ñenn lu dul ñi nga xamante ne ni ñoo ñi nga xam ne ñoo aju ci yoon wi nan lañ nekkee jafe-jafe ci yoonu murit mooy li ëpp ci ñoom yoonu murit dafa rafet taaru ci ña ko xamoon ña ko Sëñ Tuubaa jàngaloon wala ñu ko jëlee ci Sëñ Tuubaa ñañ ko jàngaloon mu génn ñëpp dañ koy xeemam di daw di ci ñëw sëñ bi tamit yàlla defal ko ak nangu goo xam ne mbiram lépp a jag ba tax ñëpp di fàq di ñëw léegi mu jum nekk mbooloo moo xam ne nag li ëpp ci ñoom yaakaar naa sax ci foofu laay taxaw ndax waxtu mi ngi jeex li ëpp ci mbooloo mi ah, dese nañoo xam dëgg-dëgg liñ daw ñëw lu mu doon yoonu murid wiñ daw ut si nii mooy lan nit ñi dese nañ koo xam li ëpp ci mbooloo mi xamuñu ko ba tax na nit moom ni ko yàlla bindee faaw muy wax di jëf ci biir ay waxam ak jëfam nag mi ngi ciy soppi lu bëree bëree bëree bëri ci yi nga xamante ne nii moom la sëñ bi tëraloon ne mooy mooy yoonu murit ba nga xam ne tey jii ku koy xool di déglu wax yi ñu ko sëñ bi waxee di déglu rawatina liy jàll ci inlam bi ci infra ci média yi da ngay dem a dem ba yow dangay ngay jaaxle dootoo xamati ndax dafa am ñaari murit gi nga jàng ci Sëñ Tuubaa ci téeréem yi ak murit gi nga xam ne moom la nit ñi di waxtaane muy loo xamante ni lu doy waar la ah, comme wax nañ na waxtu eh, egsi na kon dañuy yamandi foofu rek sëñ bi indi na ci yeneen taxaddi yu bëree bëree bari bokk na ci ñàkk organisé bi te muy lu am am solo suñ Tuubaa defoon ko ci gàttal rek mën nga coo joxe misaal boo jëlee këru njaarim gii ñu ko mujjee mu mujjee nekk rek boo buñ la wootee buñ la wonee foto bi nga xam ne moom lañ jël ci kaw rek daa gis ne Sëriñ Tuubaa moom aggoon na dayo ci ci nos sans compte nañuy dugg ci yeneen yi nga xam ne adwaar yi ni mu ko séddale kenn ku ne la nga war a def mu féetale la ko te yooyu yëpp di ay jafe-jafe yoo xam ne mu ngi dal yoonu murit alal ji bari na doole ji bari na lépp bari na waaye mbir mu ne ñu teg ko fañ ko war a teg euh, tax na ba euh, ni mu war a demee demee wuñu ci fi may tëjee rek mooy fi mu mujjee mooy li ñu wax ne ay attaque la yu jëm ci yoonu murit dama ciy jël benn rek boo xam ne moom ci ci biir la nekk ñu bëri yi ñuy wax ne ay attaque la yu jëm ci yoonu murit da ci am mooy bi mu wax ñi nga xam ne dañoo judd ci yoon wi fekk seen maam ak Sëñ ñu jàng yoonu murit ba xam li mu doon tey jii ñu gis ne li ñu wax ne mooy yoonu murit ak ñoom liñ jàngoon xam ko bokkut ak yoonu murit ñoom ñu jug di def ay ay ay ay ay jéego ngir bëgg a leeralaat yoonu murit waaye mu mel ne dafa am ñoo xam ne dañuy jàpp ni ñiikat li ñuy wax ne mooy yoonu murit yoonu murit di dal ci seen kaw te ni mu ko waxee waruñoo daal ci seen kaw dañ leen a war a jël indi leen li ñuy wax bu fekkee wér na te yaakaar na li ci wérna bu lépp wérut li ci ëpp wér na ñu jàllale ko jariñoo ko kon daal day maw dox boo xam ne bu ama am solo la bu yaatu la boo xamante ni maa ngi gis ne doon na jaadu ci boo ñu amee ci fil furos alxaadima ci occasion yi di ñëw def ci sax lu mel ni ay nadawaat wala ay table dana am solo ndax euh, euh, njariñ li gën a gën a yaatu kon dañuy tënk foofu rek di fàttali mbokk yi ne daayiratu Muxaddamatul Xidma mi ngi leen di jox dox daje suba incha allahu taala ci beneen tomb boo xamante ne ni mi ngi nekk al muhafaza ala al bia waajibun diini wa daruriyatun ijtimaiya maanaam sàmmoonte ak dénd bi mooy li ñu wër warwaru la ci diine warwaru diine la maanaam diine daf ko waral ci ñun te itam ginnaaw bu ko diine waralee ci ñun tamit lu mënta ñàkk la ngir suñu dund jàkk muy ab bind boo xamante ne bu soobee bu soobee yàlla suba insha allahu taala sëriñ Fallou Bousso Thierno dana fi ñëw ànd ci ak mbokk yëpp kon ñu ngi tënk rek dellu di gërëm sëriñ Fallou Bousso Assane waxtaan wi am na solo xañ na waxtu yu moo doyul ngir euh, jàll ci yëpp yi nga xamante ne war na ko ci gën a leeral kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal suñu borom dolli xam-xam bi te sàmm la nga yàgg taxawee liggéey yu mel nii euh, dama koy faral di maa ngi ko koy wax léegi di ko tooñ ne ko sa ay mawdoonaat dafa am solo lool ndax day mawdoon yu nga xam ne day laal dund gi maanaam li ñuy dund mu amal ñu njariñ mu baasaratan daf ko daf ko yitteel kon ñu ngi lay ñaanal suñ boroom dool la ci tawféex del di sant waa daayiratu Muxaddamatul Xidma di sant mbooloo ñi nga xam ne ñoo ñu doon topp ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ولجميع المسلمين ترى صادقين واجعل جميع صادقين فائزين وامنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعلهم بنا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وليلا wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima laqin lisaani waxlulam minhu luqad wajcalhu zakiran wa shakiran abad wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñuy seetaan fii ci télévision Futurs Médias ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare ci weeru tedd yu ñu nekk muy weeru koor di leen ziar bu baaxit ci jamono ji ñu toll ci weer yi muy fukki fan yi nga xam ne moom mujj ci weer wi di fukki fan yu bari barke di fukki fan yu bëri ngëneel ñu leen di dalal jàmm fii ci dëkk bu sell bii di Touba di dëkkub Cheikhul Khadim radiallahu anhu di leen dalalee jàmmit fii ci Madiana ci kër Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Chouaïbou ñuy yëkkati kàddu yi nuyooyu ak ziar yooyu nag di ko tàmbalee ci Maulana Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim di ko ñaanal suñu borom kàttanal ko te dëgëral ko te guddal fanam te barkeel mboolem ay yëngoom ba mot li yéene yi mu am yëpp ngir diggeel Cheikhul Khadim di yëkkati ay kàddu yu cantit di ko jagleel sëriñ Abdou samat mii nga xam ne moom la ñuy amalee jotaay bii fii ci këram euh, lépp ci ak saytoom Euh, ñu ko ci sant bu baax ci taxawaay bi ak mboolem taxawaay yi mu am yëpp rek ci yoo xam ne yu jëm ci yoon wi la ak njàngaleem sëriñ bi di jotli bu baax it ay kàddu yu sant ak nuyoo ci rakkam cheikh Mouhamadul Bachir mu cheikh Abdoul Khadir moom it di jaar ak moom foofu rek di ko ñaanal suñu borom kattanal ko te barkeel ko. di leen dalal bu baax it ci jotaay bi nga xam ne moom la ñu nekk ak yéen ni tey muy jotaay boo xam ne it li ko wund rek mooy xam ngeen yéen ñëpp ne jamono ji ñu nekk. muy weeru koor rawatina ñaar ko fan juróom-ñaar ci weeru koor wax nañu ne cheikhul xadim radiallahu anhu ci la woote woon wooteem bu rëy bii nga xam ne moo mujj siiw bañ koy woowee yoonu murit ci la ko woo wootee woon kon muy xew-xew bu mag boo xam ne bu am solo la ci ñun waa kër sëriñ bi xew-xew boobu nag del si gii mu del si tax ñu amal jotaay bii tey te li ko tax a jóg rek mooy fàttaliku xew-xew bu rëy boobu ñu wax ne nag waras naa kon amal ab jotaay boo xam ne woote boobu sëriñ bi woote woon ci Mbàkke Kajoor kon danañ def jotaay boo xam ne dañ ciy fàttaliku woote boobu mooy lan dëgg-dëgg ak bi mu jógeeg léegi nag lu mu jural julliti Sénégal ak julliti àdduna bi yëpp kon muy waxtaan wu am solo boo xam ne jamono ju ne walas na ko waxtaane waaye jamono jii nga xam ne nag mu ngi tombeek fi ko sëriñ bi doon wootee ci la gën a yell waxtaan wi nag incha allahu taala danañ ci ànd ak ñeent ci ay mbokk ay borom xam ñoo xam ne ñëpp xam nañ leen fii ci dëkk bi nekkatuñ ñu ñu présenté fenn ci yoonu murit ak ci réew mi ñoom lañ fas yéene séqal waxtaan woowu muy sëriñ Ahmadou Mbacke Daarul Moxti féete ma ci ndeyjoor ak Oustaz sëriñ Mbacke Abdourahman ah, ak ñi nga xam ne it maa leen féete seen ndeyjoor muy docteur Abdou Lahad Sané ak docteur sëriñ Khadim Silla ñoom ñooñu lañ fas yéene àndal waxtaan wi danañ ko waxtaanee ci anam goo xam ne anam tënk rek lay doon ndax loolu xaju sax ci ñaari jotaay rawatina benn jotaay waaye danañu waxtaan ci Cheikhul Khadim ñu waxtaan ci wooteem bi mooy lan dëgg-dëgg waaye dana ñu tëjee waxtaan wi nag woote bi bi mu jugee ak léegi lum juralagun Sénégal lum juralagun lislaam lum juralagun julliti senegal kon ci tàmbali rek danaa jox mbokk yi kenn ku nekk mu nuyoo nuyoo bu gaaw ñu fas yéene dugg ci waxtaan wi sëñ Ahmad bismillah aoudu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa moolana muhammad ibni